société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali nag ñoo ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ci xët mu njëkk mu xëy di ñu xibaar naan ñu député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag dañoo jëloon ab recours daal di ko yóbbu ca conseil constitutionnel ngir nag ñaawlu bu baax a baax yi nga xam ne moom la assemblée nationale nekk ba du a xam ne jëm na ci wàllum xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom ne doxalinu njiitul assemblée nationale di Diop dafay indi ay gàllankoor ci pouvoir public bi loolee tax na ñu jëloon ab requête daal di ko yóbbu ca conseil constitutionnel waaye nag requête boobee dañu ko daal di gàntal bi nee na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi seen bëgg-bëgg maanaam moo nekkoon fexe barandal Amadou Mame Diop daal di installé Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne mooy premier vice président assemblée nationale journal bi di Rewmi Quotidien nee na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi opposition maanaam bëri na ay yoo xam ne njàmbat nañu ko ci assemblée nationale waaye mbir mi mujjul fenn ndax bëri na ay question orale yoo xam ne gars yi bi yóbbu nañu ko ca Amadou Mame Diop waaye mujjul fenn bëri na ay question d'actualité yoo xam ne yóbbu nañu ko ca Amadou Mame Diop waaye mujjul fenn bëri na tamit ay demande commission d'enquête parlementaire ca Amadou Mame Diop njiitul assemblée nationale waaye mujjul fenn gars li ñuy taafantaloo mooy assemblée nationale dafa nekk ci vacances loolee la député coalition Yewwi Askan Wi di ñaawlo yéen kay gi di Vox Populi xëy du ñu naan ñu Bassirou Diomaye Faye bu impôt et domaine jamono ji ñoom mer nañu ba maara détaal yi ndax Bassirou Diomaye Faye impôt et domaine la nekk yéen i kaay na waa impôt et domaine daan nañu dugal ab préavis de grève bëgg nañoo takk tamit ay sagar yu xonq waaye nag danañu dem ab grève total ñaar fukki fan ak jàpp ñaar fukki fan ñeent ci weeru mai wi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye nag ñoom nee nañu duñu sa yama ndax fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru juin tamit danañu amal ñi nga xam ne ñooy waa impôt et domaine ñoom ne jamono ji dañu leen di bunduxatal journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa ji ñoo ngi ci guddi gu bët séddiku la ndax am na lu toll ci fukk ak juróomi responsable Pastef yoo xam ne jamono ji tembe ñuy wax ak yéen ñoo ngi ci kaso bi am na si ñeent ñoo xam ne takkal nañu leen ay bracelet électronique am na si ñeneen ñeent ci ñoom ñoo xam ne ñoo ngi ci contrôle judiciaire waaye lu ëpp ñetti téeméer ci militant Pastef yoo xam ne jamono ji tembe ñoo ngi ci kaso bi journal bi di Walf Fadjri xëy duñu xibara naan ñu lu jëm ci wàllu mbind mi ngir nag waajal élection présidentielle 2024 ñi nga xam ne ñooy primo yi jamono ji sonn nañu loola ngir maanaam mbindu mbind mi ci boppam jamono ji gi maanaam moo jafe journal bi nag na ma ko jàppe ne ne gars yi ñoo ngi segg te heure bi jotagul la yéen i kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu sorti bi Idrissa Seck defoon wax ne candidat la ba léegi njaw ma ngay wéy di desu xam bi ne ca conseil économique social environnemental ndax bureau ba fukki membre la ak ñaara juróom-ñetti membre yëpp jamono ji ñoo ngi ci yoonu bloqué conseil économique social environnemental ndax juróom-ñetti membre yi ñoom nag dañoo jàpp ne Idrissa Seck déclaration bi mu def tegu ko fenn journal bi di laas xëy di ñu xibaar naan ñu nag Idrissa Seck bu dee nag dafa ak waa Benno Bokk Yaakaar Benno mën nañoo ñàkk majorité bi nga xam ne am nañu ko ci assemblée nationale yéenekaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne nag ñooy waa PDS ñoom nag nee nañu ñu ñu ci ñu sañum ngeer Karim Wade mooy seen candidat ci élection présidentielle 2024 ñoom nee nañu nag amuñu plan A amuñu plan B maanaam Karim Wade mooy seen candidat discours bii nga xam ne moom la waa PDS di wax jamono ji ci atum 2023 bi loolee la ñu doon wax ci atum 2019 bi waaye nag ba ñu demee ba sa mujjantal ga gisuñu Karim Wade ci réew bi nee na Karim Wade bindu na waaye nag bindu rek doyul ngir nag mu bokk ci élection présidentielle 2024 ndax Karim Wade ba léegi dafa am benn gàllankoor gàllankoor boo xam ne toll na ci 138 milliards yoo xam ne daf ko ameel état bu te war ko remboursé te na Karim Wade bu ñu ko amnistie wul 138 milliards yi daf koy fay te bu ko Karim Wade fayul maanaam contrainte par corps mën nañu ko teg ci kaw Karim Wade maanaam jëlaat ko ku yóbbu ko ci kasu bi journal bi di Direct News nee na mu neex Karim Wade ak mu ñàkk koo neex ëllëgëm ci lu jëm ci wàllum politique ci loxol Macky Sall la nekk nekk bu doon ab buntu la caabi ji makee ko yor journal bii di libération xëy di ñu xibaar naan ñu Sidi Ahmed Mbaye mi nga xam ne moom la ñuy tudd ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr teg ñu ko loxo niki démb sa diwaanu mu mujjee nañu ko bàyyiwaat coow li ni mu demee woon mooy Sidi Ahmed Mbaye mii dafa waxoon ne yor na benn clé USB boo xam ne vidéo Ousmane Sonko moo ci nekk bu mu nekk ak benn xale bu jigéen laaj lu tollu ci fukk ci million ñu jox k fukki million ya mu joxe clé boo xam ne maanaam ab vidéo nekku sa loolee taxul ñu daal di koy porter plainte démb la section de bu Thiès teg loxo Sidi Ahmed Mbaye waaye tamit moom Sidi Ahmed bay daat nay nangu lépp nee na lépp daf ko inventé ngir nag encaissé dix millions yi waaye jamono ji ak njabootam ñoo ngi dëbbal dëbbal ngir rembourser xaalis bi journal bi nee na libéré nañu ko waaye dañu ko convoqué waat yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar na ñu lu jëm ci mbiri Fulbert Samb ak Didier Badji ba léegi mbir mi pënd bi wureegu la ñi nga xam ne ñooy waa société bi jamono ji ñoo ngi sàkku ci état bu ngir ñu leeral mbir mi yéen kaay gi nee na njabootuk Fulbert Samb Samb ak Didier Badji ñoom nag jamono ji naqarlu nañ bu baax a baax noppi gi nga xam ne moom la ci kilifa yi réew mi noppi maanaam autorité yi état bu Sénégal noppi giñ ci noppi loole la njabootu Fulbert Samb ak Didier Badji di ñaawlu ndax nee nañu enquête bi jamono ji point mort la nekk maanaam demul cëng dikkul mbay laar journal bi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu démb ngor tàngoon na jër ci suba gi ndax ñi nga xam na ñooy xale yi ñoo wàcc ci mbedd mi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi defante ko ak ñoom ba mu saf sàpp maanaam sànnante xeer yi mel ni tulleeg taal taabul yu baree baree bare taal ay pëna journal bi nee na li ko waral ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie ñoom nag dañoo bëggoon benn terrain boo xam ne ab brigade lañ siy tabax ca diwaanu Ngor journal bi nee na loole moo indi coow li waaye jàppante bu metti moo fa am niki démba journal bi di laas ñenn ci waa Yoff yëkkate nañu ay kàddu nee nañu mbir mi ni mu demee ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie ñoom nag dañoo waxoon ne dañoo bëgg ab terrain boo xam ne deux cent mètres jàpp trois cent mètres carré la ngir nag tabax ab fi nga xam ne mooy ci commune bu Ngor waaye nag ba ñu demee ba sa ci pandaw gendarmerie bëgg a ngar daajoo site bi site boo xam ne six mille la te ñoom waa gendarmerie deux cent jàpp trois cent mètres waxoon loole la askanu Ngor lànk ba tëdd sa naaj wax ne duñ ko fi defee tey duñ ko fi defee ëllëg ñii bu ñu bëggee nañu jël terrain bi nga xam ne moom la waxoon waaye nag bëgg ngar daajoo lépp loolee moom munta nekk waaye ñun musuñoo bañ ñu daal di tabax ab brigade yéen i kaay gii di li di jenxëy di ñu xibaar naan ñu nga xam ne yar